gan gi euh, Boubacar euh, Baldé euh, bokk ci parti socialiste ñu gën ko xam ci Sarkozy yay itam coordonnateur national bu IRAS initiative de réflexion et d'action socialiste ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm mais maa ngi leen di nuyu di leen di di leen sant bu baax di remercier personnel de de FM. Mhm. alors euh, waxtaan wi ñu koy tàmbaleeg euh, parti socialiste ak élection présidentielle euh, bu 2024 bi ñu jëm ay weer yu néew moo si des 2019 bokk leen woon ci élection ndax amu leen woon candidat socialiste est-ce que ren parti socialiste dina am candidat wu boppam ci élection bi. waaw xam nga mënuñu nekk depuis 2012 kon nu ma leen ko waxee les camarades socialistes à la base. gis ñu couleur parti socialiste depuis 2012 les camarades socialistes ñu nekk ci base bi les responsables socialistes gis ñu benn responsable national ci biir partie bi ñëw di leen nemmeeku di leen wax ci situation parti bi fu mu toll loolu tax na tey euh, socialistes yi organisé wu de la base au sommet des responsables de la base au sommet hmm. ñu jàpp ne et que euh, maanaam kuréel bi ñuy wax IRAS dañu ko war a dañu ko war a taxawal pour sauver au moins leneur pour sauver le parti socialiste donc euh, ñu jàpp ne tamit que euh, que man incha allah man maa ko war a jiite. ñu dénk ma ko ma jiite di ko doxal di ci ci ay charte di ko doxal ci ay principe donc loolu moo waral IRAS juddu. loolu moo waral tey eh, te loolu moo nekk xeexu URAS muy parti socialiste am candidat en 2024 te incha allah dañ ci yegg bu soobee yàlla. Hmm. pourtant déggaguñu benn yoon euh, PS en tout cas bureau bi fësal candidat te am na ñoo xam ne ne nañu ñooy probable candidat wu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di sax déglu ak di waxtaan ak ñoom mais seenuñu leen ci benn yoon euh, lan moo xew dëgg-dëgg est-ce que débat wu candidature PS ci élection 2024 posé ngeen ko ci seen biir parti. waaw posé nañu ko mais de façon informelle pas de façon formelle. Hmm. donc bu fekkee ne dañu war a poser le débat d'une candidature de façon formelle instance régulière mooy instance mooy mooy bureau politique amul benn instance bu nga xamante ne sut na bureau politique ci instance parti bi donc man maanaam moo moo moom moo kawe instance yëpp bu ñu ci bureau politique bi mooy instance en fait mooy instance d' exécution maintenant lu ñuy wax en fait instance décision muy le parlement du parti mooy le comité centrale foofu la ñu war a woo tous les militants et militantes membres du comité central ñu ñoo war a jël ndogal bi décider pour que le Parti socialiste am candidat léegi loolu waxtaane nañu ko waxtaan nañ loo ci loolu dans les instances bu la ñu fàttaliku bureau politique bu ci mujj euh, bu nga xamante dafa nañ séminaire dañ jàpp ne Parti socialiste dafa am war a am candidat te séminaire boobu ñun IRAS ñun ñoo ko proposé ñu réfléchir ci ci ci ci surtout terme de référence yi def proposition bi à la direction du parti à la secrétaire générale mu nangul ñu ko et man mii di wax ak yéen tey man maa nekkoon au fait au fait euh, euh, euh, donc maa ngi ci commission vie politique bi. Hmm. donc loolu loolu yaakaar naa lu am solo donc lu ma la wax moom yaakaar naa c'est du béton parce que maa ngi woon donc j'étais membre de la commission vie vie politique. donc euh, pour wax la ne ne effectivement ñu ngi ciy waxtaan mais de façon formelle waxtaan boobu amul parce que ñun luñ ñoom luñ ci jubloon ci ci ci ci ci ci fait au fait euh, euh, ci tappale su hmm. njublan lañ ci jubloon parce que xam nañ ne bu ñu poser le le le problème de façon formelle en bureau politique où tous les membres de droit dañuy dañuy teew wala comité centrale daanaka xam nañu ne du ñu am ndam ci lu ñu xamante ne moom la ñu bëgg lu ñu bëgg moom ñoom quelques individus aussi quelques groupuscules de personnes ñoom ñoom ñan na la waaw xam nga xam nga xamante nañu aussi man euh, yéen yen sax yéen journaliste xam ngeen la hmm, xam ngeen xamuñu leen de yéen yéen a leen xam trois personnes wax ñu ñan la way xam nga ku si ji ku si jiitu hmm. ku si jiitu damay wax mooy Aliou Ndoye mooy hmm. Alimané mooy Aïda ah. mooy Cheikh Seck. Cheikh Seck sax temps yi sax dafa xëy na dafa dafa commencé di di di di comprendre l'enjeu di moment. voilà donc ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo am téye Aminata nga Ndiaye en notage di ko waxloo di ko defloo ci lu nga xamante ne base bi àndu ci ci lu nga xamante ne instance régulière suñu toog ñu waxtaan ci xanaa ñoom tey boo xoolee tey ñoom ñoo ñëkk investir Macky Sall ku nekk dem ci basam naan nag investi na Macky Sall comme candidat en 2024 xanaa bu ngeen gungee nit ki ba mu mun ba mun leen demutuma waaye wax dëgg yàlla bu fekkee ne gore ngeen mais war nañ dellu ginnaaw ñu xoolaat seen bopp xoolaat seen parti donc loolu mooy principe donc kii daf leen woon na ne faalewu leen daf leen loo fayda xam na ne c'est des gens yi nga xamante ne dañu koy dugal ci ay erreur te ñu sont pas des ay responsables yi nga xamante dañu koy apporter quelque chose à la base pourtant ñun ñun dégg nañ fi ne Aminata Mbengue Ndiaye jox ngeen ko carte blanche pour mu xool candidature PS naka lay demee ku ngeen jox carte blanche kay war koo mën a bàyyi moom mu joxe carte blanche carte dégg nañ PS ban PS ah PS kay benn la nga gis ban instant yéen ngeen teew ñu ne tey bureau politique bi dafa réunir da ngeen mu dañ leen mos invité ci benn instance yéen saa kan ngeen def lu ngeen dul yëgle non madame hmm. eh, carte blanche amul dañoo suñu suñu carte blanche amul suñu texte parti loolu na leer. Hmm. ñun on a des congrès d'investiture bu fekkente même candidat le le plus petit candidat bu ñu lay investir comme maire à la base base bi mooy def proposition bini rapport envoyé ko coordination bi coordination bi envoyé ko union régionale ko bureau politique bureau politique proposé comité central. Hmm. donc dama ne le plus la plus petite responsabilité noonu la ñu ko investir. bu ñu doon investir Macky Sall en 2012 néew nem ci yàlla Ousmane Tandian yàlla na koy lay rem dafa mm-hmm. consulter base bi mm-hmm. envoyé des circulaires de consultation de de des comités ba ci section yi ku nekk joxe aviam ñu ne Ousmane comme yow dañ la dañ la ruus yaa ñu ko ñaan ah ñu ne mu jàppoon ne de parti bi day am candidat 2019 déjà mm-hmm. mais kon ñaan nga ñu ko te nee nga ñu incha allah suñu contrat ak Macky Sall si 2019 la yem dañ la koy may ñu prépare suñu candidat donc Tanor nangul ñu loolu mu effectivement mu xam la ñu ne ko 2024 dañu am candidat hmm. donc noonu la ñu investir Macky ba mu remonter au sommet bu mu remonter au sommet tamit ñu jàpp ne comme base bi nangu na nañu def congrès d'investiture congrès d'investiture boobu dañu mujj sax invité Macky Sall maison du parti socialiste ñu investir ko foofu et c'était ça d'ailleurs une erreur politique grave hmm. nga xamante ne tey parti bi mu ngi koy rëccu militaires ñu ngi koy rëccu ñu ngi koy parce que Macky Sall dafa trahir par soliste trahir mm. par soliste trahir la mémoire de notre défense secrétaire parce que tey xam naa ne gis ngeen lu dal par soliste tey Ousmane Tanor Dieng dundoon tey mm. du ko nangu du dal parce que xam na lu mu waxantoon ak président Macky Sall même bu fekkee sax par extraordinaire tey waxante wuñu ko yaakaar naa principe loyauté sincérité dafa exiger pour un homme digne bu ñu xasee ñun gong jox nañ la bopp jox la lamiñ ci deux mandats bu ñëwee bu ñu la tey ñun Parcelles la ñuy soxla troisième euh, au moins deux mille vingt quatre nekk candidat xanaa war waroon nañu mën a jàppale tey. est-ce que yéen am ngeen candidat est-ce que présenté ngeen candidat. madame un parti comme le Parcelliste mënul ñàkk candidat. kon da ngeen mun leen du ngeen bokk loolu la. non madame ñun Parcelliste. Hmm. dañuy wax ne. Hmm. dañu yàgg wax ne dañuy am candidat en wax nañ ko ñun bind ñun au sein de IRA bind nañ ko propose nañ ko direction du parti bi direction du parti bi nangul nañu don dont on est membre d'ailleurs de cette direction du parti man mi wax ak yow je suis membre de la direction du du parti. mais est-ce que direction parti bi ci njiitalu Aminata Mbengue Ndiaye saisir na président Macky en euh, Bokk Yaakaar ne ko PS dafa bëgg am candidat loolu lañ bëgg mu leer. madame xam nga loolu foofu mooy problème bi ah. ñun on n'a pas à saisir Macky Sall Macky pas le secrétaire général du parti Macky Sall n'est pas l'instant du parti. tey Macky Sall mu ngi nii mais mënuñu woon ne moom parti parti moo ko intéressé on n'a pas à saisir Macky Sall pour la candidature. waaw kon lu tax nga ni Macky leen war kon kay yéen problème bi. seen direction parti la non non cest moom daf ñu waroon daf ñu waroon jàppale. parce que loolu moo nekkoon le le le. looloo nekkoon contrat bi. loolu moo nekkoon contrat maintenant oui hmm. ñu waroon jàppale en 2024. d'accord moom ala kulli ali même bu ne woon na tey day day dem et Macky quand même bëgg na dem. dafa hmm. dem xam na ne tey bu demee il sera humilié. loolu muy dégg aussi même bu demoon ne tey xamoon na ne Macky in du doon am du am l'électorat socialiste à la base xamoon na loolu lu ko leer la donc loolu tax na tey aujourd'hui ñun dañu war a xoolaat suñu bopp dañu war a gëstuwaat suñu parti dañu war a gëstuwaat suñuy militant à la base ñu am ñuy déglu et d'ailleurs boo xoolee depuis deux mille douze les militants sociaux à la base n'ont jamais respecté le mot d'ordre du parti socialiste parce que dañu gisul gisul dañu gisul seen bopp ci lu parti bi di def xamatuñu parti bi xamatuñu dirigeants yi xamatuñu instance yi donc dafa mel ni tey parti socialiste dafa sey ci biir Benno Bokk Yaakaar dafa sey ci biir ci biir ci biir ci biir APR te Macky Sall nag di ko def lu ko di def lu ko neex di def lu ko neex day xanaa tey au moins euh, l'équilibre voudrait aujourd'hui Euh, la déontologie voudrait aujourd'hui l'honnêteté voudrait aujourd'hui tey bu fekkee ne tax sax tey ñun dañu ne euh, tànnal ñu dañ ko ne tànnal ñu bu fekkee loolu lañ ko wax mm. mais xanaa buy tànn sax parmi les parmi les prétendants mais au moins mu doon au moins des socialistes ñu ci bokk mais intéressé ko sax mais mosu ñu ko wax d'ailleurs mosu ñu wax Macky tànnal ñu du makki mu sal moo ñuy tànnal suñu candidat en 2024 mm. ñun par socialiste en tout cas ñu ngi ci loolu mm. bu ko bi cette direction obsolète là bu ñu ko deful ñun parti ñun sein de l'IRAS ñu ngi koy def ñu ngi ciy dox te on va y incha allah parce que comme ni ñu ko defee démb on a fait une conférence de engagement et nous avons confirmé notre position pour avoir un candidat socialiste en 2024. justement dégg nañu ne da euh, jàppale Khalifa Sall déjà jëm ci élection 2024 est-ce que dëgg la IRAS. Euh, xam nga ñu ngi ci ay pourparlers ñu ngi ci ay waxtaan. yéen a ngi waxtaan ak moom. ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci ay waxtaan yu profond. ma ne dégg naa ne joxe pare. non non non non ñun IRAS c'est-à-dire que duñu duñu def erreur bu direction de parcelles yi def d'abord Khalifa c'est un socialiste ça qu'il faut retenir donc nous aujourd'hui ñu ngi xeex pour le retrouvaille de la famille socialiste loolu mooy volon moo nekkoon volonté suñu defoon secrétaire Ousmane Tanor Dieng c'était sa dernière volonté mm-hmm. donc ñu ngi xeex ci loolu et d'ailleurs c'est ce qui fait la force de IRAS aujourd'hui boo xoolee tey nous sommes restés dans les fondamentaux et nous avons toutes les sensibilités au sein de IRAS nous avons des membres de Taxawu nous avons en fait, euh, en fait de l'AFP, euh, nous avons de la LD Assise, LD Debout. Donc nous avons toutes les sensibilités au sein de l'IRAS, mais qui la famille de la gauche plurielle. donc loolu mooy tey euh, loolu moo tey. waaye direction PS nee na légitime leen euh, te itam da ngeen a mer donc ay mer ngeen mu ngeen. waaw xam nga xam nga yooyu ay waxu. frustré moo ngeen def seen courant di bëgg daal xajamal cere ji. madame xam nga loolu ay waxu waxu jaaxaan la sax. Mm. Euh, ñun lépp lu ñuy def dañ ko dañ ko dañu basé ci ay texte texte parti moo autorisé les mouvements d'initiative et d'action ñun ñoo moo texte parti moo autorisé loolu loolu moo waraloon tey vision socialiste juddu dont je suis membre d'ailleurs vision socialiste mm. ak Léema Lamine Diatta loolu moo waraloon tey convergence socialiste juddu loolu moo waraloon tey MNGS am loolu moo waral JDS amoon bu njëkk ba donc loolu ay waxu caaxaan la lu xam ngeen ci day daan xam ngeen même bu fekk ak ngeen amu leen culture politique mais quand même je pense culture générale d'information xam ngeen loolu parti bi noonu la mu sa doxee c'est des mouvements autorisés par les textes du parti. loolu waxu caaxaan la. waaw mais nee li ko lal mooy c'est parce que amu leen ay postes de responsabilité da jàpp na ñeneen ñi ñoo fi nekk daal ñu leen di servir rek ñuy doxal yéen dañ leen euh, bàyyi ginnaaw moo tax ngeen. def seen courant alors madame je vais vous faire euh, je vais faire hmm. ko. Hmm. madame man dañu ma proposer man. Mm. des postes de responsabilité. ku la ko proposer. maa ko décliner. kan moo la ko proposer. gouvernement gouvernement président Macky Sall. lan lañ la proposer. dama ne dañ ma proposer woon. Mm. à deux reprises des postes de responsabilité. Hmm. dama ne man je suis un homme d'honneur sama dignité du ma jaral des postes de responsabilité au sein. du gouvernement de Macky Sall ça ne m'intéresse wala benn ministre wala benn directeur général loolu après loolu après dañ koy dañ koy dañ ko mais dama lay jox seulement. je te donne euh, la prime de l' information là. Mm. nga xam loolu loolu ma am donc loolu moo suñu intéressé. kon mm. loolu imagine toi Macky euh, aujourd'hui man nekk coordinateur bi depuis vingt depuis deux mille vingt et un. Mm. des milliers de milliers de camarades am confiance ci man ñu dégg ne tey woo nañu ma pale ba recevoir nañu ma. jox nañ ma lii jël naa ci mais ce serait une trahison te man ko wax dëgg yàlla <laughs> ce n'est pas de ma nature ñu ma xam bokkul samay samay culture bokkul sama éducation bokkul vraiment samay formation hmm. donc c'est des camarades de haut cadre des responsables à la base au sommet ñu am kóolute ci man donc je dois mériter cette confiance je ne suis pas intéressé à un poste de responsabilité je n'ai jamais été intéressé à un poste de responsabilité maa ngi sant yàlla di liggéey sama liggéey. Hmm. et je gagne honnêtement ma vie. donc loolu bëggoon la leeral ne vraiment euh, ñun au sein de IRAS vraiment je pense que yàlla aussi ñu ci gërëm yàlla parce que nous avons que des hommes libres indépendant indépendants. d'accord des professeurs d'université. Mmh. des architectes des entrepreneurs donc des gens libres indépendant indépendants donc poste de responsabilité intéressé ñu. Hmm. donc boo wax dëgg waxu frustration comme si dafa am lu ñu soxla. amuñu ko ba pare ñu ñu ñu créer incendie pour pour pour pour pour pour, pour dinga mm. non on est contraire aux autres ñeneen ñu nga xamante dañuy def politique seen profession loolu may dëgg. Hmm. donc bu ñu amul responsabilité politique du ñu dund. du ñu dund il ne croit qu'à la politique pour un échec social te ñun nag ñu ngi sant yàlla. Hmm. bokkuñ ak ñooñu ñooñu bu ñu politikul bu ñu amul responsabilité bu ñu amul suul bu ñu leen bu ñu leen sexalee le bonbon mais écoute kenn du leen dëgg te boo xoolee tey. ñoom la ñoom la ñoom la c'est ce groupuscule de de d'opportunistes d'affairistes politiques et aujourd'hui qui veulent prendre le parti ñu ñoom ñoo bëgg a parti bi en otage. d'accord ñooñu nga xamante ne ñii c'est député ñii ministre ñii PCA ñii jox la ay responsabilité donc ils ne sont même pas cinq ñooñu ñoo bëgg a parti bi en en otage te loolu incha allah dafa dagg dafa jeex on ne arrivé à un moment où maintenant. on va faire face à la direction du parti on va faire face à la coalition Benno Bokk Yaakaar on va vraiment à tout ce qui ce qui ñu nga xamante ne eh, eh, eh, bëgguñu amuñu yenn par socialiste ou un jërëjëf Boubacar Baldé ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon nañu mbégte dalal la ci euh, matinale wu Rewmi mi tey fàttali ni yow yaa ngi bokk ci bureau politique bu parti socialiste yaay itam coordonnateur IRAS euh, courant la bu nekk ci biir PS initiative de réflexion et d'action socialiste jërëjëf Baldé.